dellu seneen rek première chaîne privée bu Sénégal juróom-ñaari waxtu ci ngoon jot na nes gis ñu dégtal leen li gën a fës ci xibaar yi ca Grand Théâtre National lañuy utali foofee nag njiitu réew mi daal dina fay dajale ñi di bàjjenu gox yi foofee nag mu yëkkati dogal ne dina yokk seeni payoor daal di koy jëlee ci juróomi junni yóbbu ko ba ci fukki junni lu jëm nag ci wàllu jur gi njiitu réew mi daal dina ci àddu lu jëm ci njàng mi wàllu bac technique dox nañ ko tey ca lycée technique bu Maurice Delafosse candidat yi ñu fa fekk nag door épreuve yi donte nag amoon na ñeen ci ñoom ñu amoon yi jafe-jafe këyit ndax seeni livret dafa yéexoon na agsi ñu wax nag jëm ci dogal gi nga xam ne kii di xalif général di murit daal dina koy jël te ñu dakkal nag lépp luy activité politique ca Touba lan mooy njeexital yi ci jamono yi nga xam ne ñu ngi waajal ay élection tontu li ci xibaar yi lay doon ay bés des laata tabaski gi ñuy xamal ne nag lii di gàtt maanaam xar bareeguloo Dakar wala yi fi nekk nag dina gis trop ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu yi ñu daal di ci mën a am li moo ci gën a nag fas yaata léegi lay doon mu ngoog dalee nag jàmm ci xibaar yi ginnaaw nuyoo ba ñu ko junjee ca bopp ba kii di njiit réew mi Macky Sall daal dinay dalal ca grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose ñii di bàjjenu gox yu réew mi foofe nag mu jël dogal ni dina daal di yokk seen alocation bi nga xam ne mu ngi tolloon nag ci juróomi junni daal di koy yóbbu ci fukki junni. njiit réew Macky nag daal dinay waxtaane li nga xam ne nag mooy jëm nag ci gën a sorel jur gi njiit réew ak i partenaire technique ak financier yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk euh, bureau bu euh, OMS daal dinañu nag rafetlu bu baax taxawaay yu nga xam ne Sénégal am na ko ci moytandiku li nga xam ne nag mooy faatub euh, liir yi ñu teelu lépp ak Fatima Diallo ak Jibi Diallo Toujours au cœur de la santé de la mère et de l'enfant, les Badianou Gor ne cessent de montrer leurs engagements et leur détermination au sein des populations. À cette occasion, une rencontre nationale a été organisée ce lundi en Le chef de bureau de l'OMS Sénégal, Dr Vincent Sodinou, a salué la baisse considérable notée dans la mortalité maternelle. Le bilan bàjjenu gox yi nag liggéey bu am solo la ñuy def ndax bilan bi nga xam ne moom la ñu daal di tëral dafa wone rek lu toll ci soixante cinq mille activités yoo xam ne réalisé nañ ko bàjjenu gox yi ci weer mun nañu wax ne rek lu ñu daal di indi ci ay plaidoyer bëri na lu ci mel ni rek visite à domicile yi ñuy def wala accompagnement boo xam ne ñoo ngi koy accompagner jigéen ñi ak xale yi loolu yëpp day wane seen taxawaay bàjjenu gox yi yemuñu sax foofu ndax dañuy ñëw ci li nga xam ne itam moo jëm ci enregistrement état civil yi dañuy wone rek ay activités yu am solo jëm itam ci récent recensement général bu population bi. en général de la population et de l'habitat. au niveau mondial la mortalité maternelle a régressé de 33 pour cent au cours des vingt dernières années. sur le plan mondial mortalité maternelle wàññeeku na si lu toll ak 33 pour cent si ñaar fukki at yi weesu ci Sénégal wàññeeku na si lu toll ak 60 pour cent ci même période li ko waral mooy suñu système de santé dafa mucc ayib te it ñu ngi ak ay jumtukaay yu moderne ak ay liggéeykat yu xarañ di ko doxal rawatina bàjjonu gox yi. moderne et animé par des ressources humaines de qualité dont les bàjjenu gox. Le chef de l'État de préciser que le taux de prévalence contraceptive a augmenté de 50 mais doit être plus élargi. sorel njur gi waaw mu ngoog mooy du neef waaw neef moom day gaañ yaay gaañ doom. kooku baaxul ci njaboot donc soreel soreel njur naissance yi loolu mooy contraception ñu war ko gën a yaatal parce que mooy yokk wér-gu-yaramu yaay yokk wér-gu-yaramu xale bi loolu def nañ ci ay jéego waaye war nañ ko yokk Le chef de l'État Macky Sall, qui a pris part à ces rencontres à porter la prime de motivation des Badianougor à 50 000 par Badian pour les 9 138 que compte le pays. Nous avons trouvé la fondation ginnaaw bi mu leen jaajëfalee ci seen taxawaay ma leen yëgal ni jox naa sama gouvernement ndigal depuis ñu xool lu ñuy def ba gën leen jàppale fekk nañu fondation Suzanne Bouffé mu taxaw temm seen wet jël naa dogal yokk seen motivation ci weer wu nekk ba mu toll ak fukki junni. et par Badiane Une subvention à hauteur d'un million a été allouée à chacune des 79 associations de Badianougor des districts sanitaires pour l'année 2023. Par ailleurs, le président de la République Macky Sall n'a pas manqué d'inviter les partenaires techniques et financiers à plus accompagner le programme au grand bénéfice la population. Fatimata lu ñu jéggali ci élément euh, bi dinañoo dellu si waat ci yeneen i euh, jotaay nag ci euh, kàllaamay tubaab ba tey ci wàllu xibaar yi ñu wax wàllu njàng mi ak bac technique bi nga xam ne daal dinañ koy doox tey ci altine gi fële nag ca centre examen wu lycée technique Maurice Delafosse daanaka élèves yi nag door nañu examen bi ci jàmm même su fekkee nag daal dinañu nemmeeku yenn ci ay rëkk-rëkk ndax bari na ay candidats yi nga xam ne seen livre de bac dafa yéexoon na agsi ñu xam ne nag ne manifester yi amoon fan ñu génn nag moo ko daal di waral ci xayma nag lu toll ci 358 euh, candidats lañ fa nemmeeku fukk ak juróom-ñetti nag euh, ñu absence lañ fa daal di euh, nemmeeku ñu teewlu lépp ak Thérèse Atima Sambou ak Libas Laye Ndir gannaaw nag bu ñenn ñi amee ab hésitation ngir daal day joxe seen xalaat ci épreuve yi nag mu am ci ñaari candidat yu baccalauréat technique yi nag ñi nga xamante ni seen xel dal na ci épreuve bu jiitu bu ñu daal day def muy science économique et sociale épreuve bi nag di waxtaanee wàllum libre échange. sonn na certes mais tane ça par rapport ak li ñuy ñi ci dañuy euh, appréhender kii nii examen bac man ça va stressé ma woon noonu. bu niroog moom classe ak euh, suñu prof économie. abordable def comme sama professeur di ma digal rek seen conseil laa topp damaa def comme si genre composition la waaye nekkul école beneen école nekkul suñu école beneen école waaw stress moom mënul ñàkk nag booy def bac moom ñëpp lay xaar koñ beeg parents ah, am na ay jours yoo xam ne jàngiwuñu waaw comme élève comme école publique am na jours yoo xam yoo xam ne doon grève jëm nag ci organisation examen bi daanaka nag ay établissement yu bëri tey jii nag ami nañu ay jafe-jafe ngir indi nag document administratif moo waral sax livré yenn ci ay école tardé président jury bu centre examen bi fii ci lycée technique commercial Maurice Delafosse nag di xamal ni nag manifestation yi am na ci wàll. mais waa Dakar comme perturbation fii la gënoon bëree xëy na peut-être difficulté ci terminer seen programme correctement ni ñu ko bëggoon mais ñu bëri quand même pare nañ seen programme yi xëy na ñeneen trouvé nañ ay yeneen moyen pour effectivement candidat yëpp am programme bi euh, xëy na peut-être ñu bëri tey par exemple boo xoolee lycée lycée technique bi. ba léegi seen livret yi ñëwagul ñu ñu xaar mais am na ñoo xam ne école yoo xam ne commencé nañ indi. ci xayma bu tolloog nag ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ak juróom ñett absent lañ fi daal am ci bés bile. candidat yi nga xam ñoo inscrire ci euh, jury bi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett. benn jury rek moo fi am candidat yi nekk fii yëpp benn jury euh, ci benn jury lañ nekk sur jury bi nag STEG la tudd STEC jury bi nag moom jigéen ñi ñoo fi ëpp parce que ci ñetti téeméer ak ak juróom fukk ak juróom-ñetti candidat am nañ euh, ñaar ñaari ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom juróom-ñeenti candidat yoo xam ne ay jigéen lañu. te ngi nii téléphone portable moom kon dafa bokk ci jumtuwaay yi nga xam ne élèves yi mën nañ ko di ko jëfandikoo noo xam ne warul euh, moo tax office de bac ay at a ngi nii yoo xam ne at bu nekk def ñuy wax ñun président de jury yi. ñu informer candidats yi wax candidats yi ne mesure boobu ba léegi mu ngi fi. ci ab dal waaye itam yaakaar ci la candidat yi di amal nag lii di baccalauréat ISTEC daa doy nag dooree lii di examen bi ñoom sax ñoo ngi xamal ni sujet bu ñu leen jox ci science économique et sociale bi ci révision yu ñu amaloon cinq classes rek gisoon nañ ko. tey somb ci wàllu politique la ñuy euh, tabbi ak euh, xalifa général des mourides di sëñ Muntaxa dogal gi nga xam ne daal dina koy jël nag nga ñu dakkal bépp activité politique ak wote ca dëkk bu euh, sell ba nekk na ab dogal boo xam ne ñu ngi ko jël nag ay weer des rek laata ñu yemal élection tabb njiitu réew fii ci Sénégal maanaam élection présidentielle yu février 2024 yi mu nekk ab dogal boo xam te nag daal dinay sooxe ay laaj yu bëri ndaxte lu toll ci juróom benneelu téeméer ci ay bureau nag la ñu nar a tuxal ndax Touba bokk na ci nag ci bërëb yu gën a bëri ñiy wote fii ci euh, senegal Babacar Fall bokk ci euh, gradé ki dellu soir nag ci ni mu gën a yaatoo ci jeexital yi nga xam ne bi lépp dogal mën na ko daal di indi ñu teewlu lépp ak kii di euh, Cheikh bu Fall ak Libas Laye Ndir. ginnaaw bi xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke jël dogal tere politique ak woote biir Touba xeltukat yi ci wàllum élection di saytu jeexitalu bile dogal. ci décision bi mooy que tubaa dafa am euh, li ñuy wax ay bureau de vote yoo xam ne nii ay abri la parce que tubaa xam ne bariwul ay ay ay infrastructure boo xoolee war na am 600 bureau de vote mais 600 bureau de vote nga jël ko délocaliser ko bëgg leen jëlee fi yóbbu leen feneen dina poser ay problème ci wàllu organisation mais am nañu administration électorale boo xam ne xarañ nañu yàgg nañu organiser élection peut-être que na ci trouver ay solution solution bi gën a fës mooy tuxal lu ëpp juróom benn téeméeri biro de vote biir Mbàkke moolaat ay carte électeurs yu bees lu ni mel nag Babacar Fall jiitalub GRADEC jàpp ni mënees nañ ci bañ a yegg parce que bu ñu bëggee par exemple ne dañuy euh, euh, euh, moolaat wala ñu tëggaat maanaam carte électeurs yi ah wala yooyu day poser ay yeneen problème te fii ak maanaam élection yi donc délai bi dafa gàtt mais jàpp naa ne daal solution du ñàkk bu fekkee ne vraiment loolu rek moo fi sës euh, solution du du du ñàkk pour ñu mën a euh, ndi ñu mën a saafara mbir mi. lu yées fukki weer laataa ñuy amal élection présidentielle yu mil février 2024 ñu yor wàllum élection Sénégal di wut solution ndax ñetti téeméeri junni nit yi bindu biir Touba mën a tànn seen jiitum réew ci anam yi gën a mucc ayib. Cheikh Sadbou Fall Touba la ñuy desandi ànd ak kii di directeur général délégué général au yi nga mi amoon nag ab tukki nemmeeku ca Touba Mbacké moom docteur Aboubacar Sarr ak délégation mu ñëwoon nag ca dëkk bu sell ba ngir nag mën a jot ñaanu xalifa général di Mouride ngir nag seen mission bi ñu amale ko ci ni mu waree ñu ñuy xamal ne nag voyagistes privés yi ñoom daanaka seen premier vol yi àgg na fële euh, ca Makka li nga xam ne nag mooy wol njëkk nag délégation générale bi war yóbbu moom 16 bi ñu dëgmal lañ nar a dem euh, makkatal mu karam mu kàddu kii di docteur Aboubacar Sarr di yu ñu toogal ca Touba Mbacké di Papa Saya Mbaye ak mu mel ne élément bi euh, yembagul du ñàkk ñu dellu ci yaata. ñu yëkkati jotaay bi dañuy ànd ak kuréel gi njaboote huissier wu justice ca cour d'appel bu Thiès ñoo doon amal nag ab bés nag dooleel nag xam-xam yi ñi nga xam ne nag ñoo jóge ca diwaanub Thiès Mbour Tivaouane Diourbel Mbacké ak Bambey ndaje bi nag dajale woon nag daanaka ay rëkk-rëkk yu bëri ñu daal di nemmeeku ci liggéeyu euh, huissier yi looloo waral nag processus yu bëri daanaka ñu ne day daal di nul lu jëm nag ci renforcement euh, capacité bi nag dina tax ñu gën xam-xamu ñi nga xam ne ñoo bokk ci euh, kuréel gi ñu teelu kàddu yi kii di Cheikh Tidiane euh, du di huissier de justice euh, ci micro kii di Mamadou Diop ak Mouhamed Chombane la tribunal joxe kayit foog nga retrouver ni koo koy jox kon loolu yi bu amul adresse bu nee par mu ngi dëkk Mbour rek Mbour dafa yaatu si ban quartier mbaa nga ne mu ngi dëkk 11 novembre rek 11 novembre sa quartier bu ndool mais boo ne coose es la dëkk gis nga coono ñëwatina dangay da daw a daw ba bëgg de mais yàlla def na niveau boobu am na évolution bu ci amoon mooy après officier de police judiciaire yi dañuy def ay numéro téléphone loolu yombalal ñu liggéey bi lool waaye tey tamit day déjà loolu doyul donc foog ñu xoolaat au niveau de ñoom seen liggéey bu ñu ko defee xam nga ñoom bu ñu defaree seen procès verbaux yi dañ koy yónnee procureur procureur defar cédule jox ko huissier pour mu convoquer nit ki donc da ngay imaginer ki fekkente ne euh, adresse bi leerul jafe-jafe yu ci am te attekat bi dafa att kayit bëgg dafa am délai te attekat bi dafa soxla mu wóor ko ni kii jot na kayit bi pour mu mën ko atte da ngay gis ñu bëri dañuy yàgg si prison yi ay renvoyé yi moo koy andi ñu naan dañ ko fa jàppale yaa du loolu parce lu mel noonu la ba waxuñu nag aussi loo xamante nit ñi dañuy laxatu nag yi say pour bañ a jël kayit loolu moom foog ñu wax ko tamit ay bés rekk des laata ñuy amal feetu tabaski fii ci dakaar nag daanaka gàtt gi euh, bëreetuñu mu nekk nag bool mbir moo xamante ne nag daal dinay soxe ay laaj yu bëri wala xar yi nga xam ne jot nañ leen a gis sax ñu ñuy xamal ne daanaka du góorgóorlu yëpp ñoo koy mën a jënd ndaxte euh, cher nañ lool loolu waral nag ba jaaykat yi nag di am njàkkare te nar di dund euh, situation bu metti bi nga xam ne nañ nar a jëm ndax ñu bëri ci ñoom ñu ngi xam ne soo moyuwul nag seen xar yi du jar ñu dénk ko Xadisatu Ba ak Libaas Laye Ndeer gannaaw ay fan rek ci des ngir ñu amal fetub tabaski daanaka rekk xar yi bëreewul noonu naka noone njëg yi itam cher na lool loole nag tax na rekk ba client yi daal di yuuxu rekk wàllu ñoom nag jàpp nañ ni rek li waral xar yi manqué bokk na ci rekk insécurité waaye it manifestation yi jotoon am fan yi weesu ci dëkk bi loole nag jaaxal na lool borom kër yi. ma ñëwoon fii pour xool si xar bu ma jënd. fu mu nekk nii non je pense que choix bi bariwul waaw mais man comme d'habitude rek bëgguma di yàgg ci ay jënd xar donc euh, dama bëgg rek xool xar bu baax rapidement rek jënd ko ko voilà mais gis naa ne avant heure bi doon na fekk fort romb rek xar yi bari ragal naa ne xar yi xëy na dina manqué te en général su manqué xam naa ne dina cher. comme par rapport ak daaw xar daaw heure bi boo woon fekk na mu fees dala mais ren yaa ngi gis ni ba léegi xar yi ñëw guró donc mooy wan ni xar gëwma mu gaaw am ka te xar yi nag cher na cher boo xam ne vraiment voilà jaaxle nañ si bu baax a baax parce que ndax cher bu muy cher. mais ak conjoncture bi ak euh, événement yi xam nañ inquiétude mais espérons ko daal léegi mu sotti ba nga xam ne xar yi dina ñëw nekk ñu revenir à la normale ku nekk ak bourse bi nga mën a am nga mën ci am xar. naka noonee itam jaaykat yi waaye it sàmmkat yi di wéy rek di ñaawlu manifestation yi fi jotoon am waral rek ba seen xar mënul ñëw fii ci région bu Ndakaaru ba waral jafe-jafe yi ni mel. xar yi boo déggee manqué na parce que affaire xeex yi amoon fii xam nga manifestation yi taal yeeg yooyu man mii di wax ak yow fii laa nekk si daral bi am na ñu bëri ñu may woo sax mais ñemewu ñu ñëw ndax parce dëkk bi nu mu mel te tamit wax nañ dëgg benn instant. boo buggee xar bu ñu yar ba mu toll comme nii gis nga xar yi bu baax. nga bu ko jaay si ay deux cent cinquante mille ak deux cent mille loolu waaw loolu day metti si ñun te du ñëpp ñoo koy bëgg jël. ñenn ñi itam di jooylu rek li nga xamante ni ba tey amaguñu place ngir teg fa seen i xar. léegi léegi mairie laa jóge ñu ne ma ñu may woo pour ñu jox ma mais amaguma place depuis sa une semaine def naa foofu déposé pour mu am point de vente fi may jaayee mais aw amaguma moo tax suma xar ñëwagul parce que du ma mën a du ma mën a indi xar amaguma place. boo indi soo deux cent mouton wala lu ëpp loolu lii nga lépp lii nga jënde ko génne ko sa gét indi ko amoo place fooy jaayee tamit. atum ren ji nag ute lool ak at yi ñu weesu nag nga xamante ni rek marché bétail bi bëreegul ay xar ci lu tollook rek fukki fan ak juróom-ñaari fan ngir ñu amal li nga xamante ne mu di fetub tabaski xar yi nga xamante ni itam nekk nañ ci mbaar yi ñoom rek la ñuy tuddee xarub yar te itam du ñëpp ko mën a jënd tension politique ak insécurité bi nga xamante Ndakaaru mi ngi koy jànkonteel daal dinay jaaxal askan wi ba dañuy des ci tabaski gi dem ca département bu Podor ak tukki nemmeeku bi nga xam ne kii di directeur wu élevage mu ngi ko fay daal di amal lim ci jublu nag mooy daal di ki ñi nga di xam ne ñooy sàmmkat yi ngir xool nag seen tolluwaay ndaxam déet nag xar dina manqué rawatina nag ci wàllu production bi ci yeneen i diwaan yi ñi di opérateurs yi nag jël engagement ne dinañu ravitailler ca na mu waree nag ay xar yu mucc ayib ci ay njëkk yu yomb kii Diong ci ay fan yu néew li des ñu fete tabaski moo waral kii di Dame Sow directeur de l'élevage amal tournée fii ci département bu Podor ngir nemmeeku yenn producteurs yi ngir xool fi seeni liggéeyu toll ngir sénégalais yépp mën a am xaru tabaski Ousmane Mbaye secrétaire ministère de l'élevage et des production animales. li ñu wan tey dafay wane ni éleveurs ñu ngi liggéey ngi liggéey liggéey bu am solo. te ci condition yu métti lii nii toute l'année moom la ñuy def te ñu nekk ci xar yi période bii rek lañ am pour mën a fesal seen liggéey li ñu liggéey aussi mën ci jariñu kon c'est important aussi que sénégalais yi gis loolu xam loolu mën si jàpp état bi li ko waroon li ko waroon jàpp nañu def na ko mooy en terme de facilité actuellement euh, waxtaan nañ suñu mbokk yi nekk Mauritanie yu nekk Mali ñu dugal seen ay xar ñu ne ci biir réew mi éleveurs ñu ngi wu. ba xar yi ñu ngi génn ci biir réew mi tabaski mbiru Sénégal yëpp la pour que mu am réussite il faut que sénégalais bu nekk dugg ci. ñii di producteurs yi ñu ngi xamle ni bu kenn tiit xar am na te du cher noonu yëpp sénégalais bu nekk dina am xar bu tolloo ak poosam. xar am na ñu ngi ni gis nga yëpp ay xar la dans chaque département nii la dans chaque commune nii la donc dama bañ ñu euh, tiital si Sénégalais jaru xar ñu ngi fii. te du cher noonu bien que ren ñax bi amul aliment bi dafa cher ñun tamit il faut ñu duggaat sunu loko yërmande pour chaque Sénégalais am xar bu baax surtout encore à bon prix incha allah. tournée bi nag day fësal naam ndogal yi premier ministre bi jël ngir sénégalais yépp mën a fête tabaski ak xel bu dal waaye tamit ngir saytu jafe-jafe sàmmkat yi ngir taxawu leen ndax xar yi mën a yomb. Moussa Sow ñu ko doon junju cinq délégué général au pèlerinage nga woon ca Touba Mbacké ñi nga xam ne nag moo jiite lii di délégation au pèlerinage nag di docteur Aboubacar Sarr ak délégation bu mucc ayib ñoo demoon nag saytu ji kii di xalifa général di Murit ngir sàkku ci moom nag ay ñaan ngir nag ñu amal ab aju Makka bu mucc ayib ñu xamal ne premier walu ñi di voyages privés yi sax daanaka àgg nañ ca Makka ñi nga xam ne nag mooy vol yu njëkk yu délégation générale yu ñoom dinañ dépp départ ci fukki fan ak juróom benn ci weeru juin gi ñu uh, daal di uh, nekk nii docteur Boubacar Sarr di délégué général au pèlerinage la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro Papa Saha Mbaye ak Bécaye Ndiaye ku wax ak wax diine te ku wax diine tamit uh, fii ci Sénégal wax këru diine yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey ci mbaaxu yàlla ñëw nañu ziar si sëñ Mountakha encore sàkku si moom ñaan mu ñaanal ñu li nga xam ne moom la la ñu président de la république euh, Macky Sall dénk te am yaakaar bu mag euh, ci ñun euh, yàlla daal di mottali yaakaar bi yàlla bañ a tas yaakaar bi. naka noonu tamit dinañu dem ci yeneen këru diine yi ñu waxoon rek incha allah ni mu xat-xat-xat dinañu ñëw fii ziar si équipe bi mu ngi taxaw ni mu war a taxawee ñu ngi jàppalante ak voyagistes yi. Euh, lépp seen lépp li nga xam ne seen soxla la ñu ngi si taxaw euh, te amul benn problème euh, démarré nañu voyage si commencé nañu depuis ñetti fan te ñi nga xam ne ñoo yegg foofu te ni egg nañu si jàmm te ñu ngi jokkoo ak ñoom amul benn jafe-jafe bi nga xam ne moom moo ci am kooku di si ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala beneen bi moom mooy délégation bi délégation bi délégation bi incha allah le 16 lay ay volom commencé pour war a yegg la le 17 te encore di ñaan toujours Euh, jàmm euh, ak salaam euh, yal nañ ko yàlla may xam ne jàmm bu amee lépp lépp dina baax. incha allah rabbi ñu dem ca diwaanu Louga ànd ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu développement communautaire l'équité sociale et territoriale di Samba Ndiobène Ka mooy ganu capitalu Ñambour euh, mu ñëwoon nag foofee ngir dalal programme de résilience agricole yi nga xam ne daal dinay concerné lu toll ci 3000 euh, ménages su Linguère ak euh, Kébémer ak programme xeex li nga xam ne moo jëm ci xiif xiif gi mu concerné nag département bu luga ak ñi nga xamal ne nag budget bi nag ci xayma mu ngi ëpp na milliards ci suñuy koppar te onze mille euh, borom yi kër nag dinañ dëkk ca capitalu Ñambur bi dinañ leen ci daal di euh, sidd ñu teew teewlu ay kàddoom moom Samba Ndiobène Ka di jëwriñ bi ñu dénk wàllu développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ci micro sunu naataangoo bu ñu fa toogal di Alioune Badara Mbaye li ñu fi indi tey euh, mooy lancé ñaari programme benn programme bi ñu ngi naan ko duppee programme de résilience agricole pour jàppale ñi nga xam ne ñooy béykat sàmmkat ak nappkat néew doole yi nga xam ne dañoo nekk ci urée bi euh, programme boobu mu ngi laal ci luy tolloog 3069 mooy ñetti junni ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama euh, euh, njël ci biir région de Louga particulièrement département de Linguère ak département bu bu bu Kébémer programme boobu soo doon xayma tey. alal bi nga xam ne mu ngi koy dugal ci ñaari département yooyu mu ngi toll ci million 631 millions 631 millions yi noonu nag li ko yëkkati lenn kese la mooy jàppale béykat bi nga xam ne tey mu ngi bëgg a béy waaye subvention nañu ba pare te mënul jënd subvention mënul euh, joxe contrepartie état bi jàppale ko luy tolloog 200 000 francs ne ko ne li nga war a matali lii mën nga cee dindi mën cee jënd matali pour mën a am engrais pour mën a am aussi Euh, semence ak yu noonu programme bi ñu naan programme de lutte contre l'insécurité alimentaire programme boobu aussi mën naa ne ci département wu Louga kese la concerné ci biir région bi programme boobu dina impact luy tolloog onze mille quatre cent ménages ci biir département bi te foofu tamit ay cash transfert yu ñu def luy tolloog cent vingt mille francs yoo xam ne dañ koy yónnee ménages yooyu ñu wax jëm ci lu ñeel di aada cosaan ak exposition bi nga xam ne nag day fësal taaru euh, ndar géej mu nekk ay création yi nga xamante ne as artiste bi dafa daal di euh, sukkandiku nag ci dundu na askan wa yeewu euh, ca diwaanu ndar ak xarañteefu ñi nga xam ne ñooy artisan yoo nekk ca gox ba lépp nag di fësal richesse bi am ci wàllu création wu plastique ñu teewlu lépp ak kii di Adjara Bonar di Cissé fësal Saint-Louis ci gis-gisam loolu artiste pluridisciplinaire d'art visuel bii ñu woowee Coco and Co daal day muy ab liggéey boo xamante ni mu ngi ko tuddee gis gi sous le regard Aïssatou Diop nekk nag responsable d'art visuel moom moo ko daal di yaatal mi ñuy expliquer lan mooy sabab bi la liggéey waaye message bi làkkatu sax daanaka moom nag dafa ñëwoon fii. gars yi dañ fi am benn kër gu mag ñuy woowee la villa Saint-Louis daal bi nga xamante ne artistes dañ fiy daje di xalaat di liggéey di defar di ko euh, jagleel Sénégal ak Saint-Louis surtout donc moom bi mu ñëwee li mu def moom mooy dafa liggéey tuddee ko gis-gis Saint-Louis par Coco maanaam moom ni mu gisee Ndar ak expérience bi ngande bi nga xamante ni moom la am Afrique tax na ba loolu nekk base liggéeyam rawatina ci matériel yi nga xamante ni moom lay utiliser aspect bi ci parcours wane na ko ñaari weer nag mu nekk ci di liggéey. Euh, cela fait deux mois que de création. li may liggéey ci projet bi ni li ma daal di gën a moom mooy euh, nekk yi fii ndax bi fi ñëwee ba léegi liggéey bi fi amal moom mooy damay xool ak samay bët observer lépp lu ma gis nu nit di def ma jéem ko illustrer def ko ay tableau comme liggéeyu journaliste rek. moom daal jàpp na ni lépp li nga xamante ni mooy décoration. ce qui est branding maanaam pinton yi ngay gis ak car rapide yi loolu yëpp day inspiré artiste moom ak tenue Baye Fall yeeg sachet yi ak li ñuy wax paan yi ñuy utiliser suñu kër yeeg moom loolu la jël inspiré aussi créer si ay chaise ay banc créer si ay dessin créer si ay table créer si ay yeneen meubles yoo xamante comme ay lampe pour ñu mën ko utiliser suñu 15 ans muy nii muy def mode objet d'illustration wu street art moom nag mi ngi basé wu dugg ca Burkina Faso waaye Sénégal nekk na réew boo xamante ni daf fi amal tànkam lu bëri ndax lim fi gis tamit day yee créativité ci fànn wu nekk. Euh, Bonardi euh, Cissé ñu tàbbi ci wàllub tàggat yaram ak basketball fukk ak benn euh, joueuse yi nga xam ne nag daal di nañ teew ci fukk ak yi nga xam ne ñoom lañ njëkkoon a sélectionné nag teew nañ nag ci bés bu njëkk ci stage ci stage bi ñuy amal nag ca stadium Marius Ndiaye lépp nag ngir waajal nag afro basket wu jigéen ñi bu ñu nar amal lu ko dalee 26 juillet jàpp 6 août 2023 ca diwaanu kigal yi ab liste nag mucc ayib boo xam ne daal di nañ ci nemme nemmeeku yeneen i cadre yi nga xam ne dañoo daal di dellu si ñu teelu lépp ak sélectionneur bi di Moustapha gi euh, ci micro Fatima Silla ak Papi Dieng dañ cee dañ cee rappelé garder une chose mel nga xam ne peut-être euh, ñaari at yu ni mais wóolute la wóolute la du cofeel mais wóolute la ci li ñu yaakaar ci moom ak li ma xam ci moom man ma ko xam ba muy nekk ndaw di ko gis muy évoluer coach naa ko 2021 yoroon naa ko en bi ñu dem euh, Jeux olympiques euh, ma xam ne Yacine ci gënte un mois un mois et demi ci waajal bi su defee li moo def dinañu appati lu bëru te Aya ak Fatou même chose la rek dama waxtaan ak Aya dama ko ne ñoom ñaar yëpp déjà dama leen ne en tout cas man am na am naa xolu ne bu ma juumee dama ne damaa juum ma ne leen seen ñàkk woote bii passé euh, maa ngi ciy jégalu et que ñun dañ leen a soxla seen seen talent seen expérience euh, ndax ñoom chaque fois que ñu nekk fi Sénégal mu suñu musuñu mu suñu wane leneen lu dul satisfaction donc ñu am yaakaar ne ñoom dinañ jël équipe bi ak leadership bi équipe bi ñoom ak euh, Ouma Khayre Sarr ak Oumou Touré euh, jéem a ak Yacine jëm a porte leadership équipe bi pour amener les autres enfants vers le succès loolu mooy suñu suñu yéene ci ñoom. waxtaan wi Fatima Silla Seck kii di mustafa Guèye di sélectionneur euh, gaynde yu jigéen yu bool gi mën ngeen ko am nag ci ni mu gën a yaatu ci seen émission sport 2S bu ñu noppee nag ci xibaar yi juróom-ñetti euh, waxtu yi dañuy wéyal jotaay wi ci bitim réew ak faatu ki nga xam ne mooy Silvio Berlusconi nekkoon ay jamono njiitalu AS Milan mi génn àdduna tey nag ci altine gi euh, ci 86 ans mu nekkoon nag homme d'affaires bu ràññeeku woon lool. nekkoon itam ku ràññeeku ci wàllu politique ak ku bëggoon football moom Silvio euh, euh, Berlusconi nag tey ci altine gi la daal di génn àdduna ginnaaw nag ay diir mu tëddoon ca ci weeru avril nag lañ ko hospitalisé woon ci ab leucémie ab ak infection pulmonaire tey nag la daal di génn àdduna ginnaaw nag jamono yële nga xam ne ajuma ji ñu génn nag mu delloowaatoon euh, hôpital ginnaaw ay examen wu contrôle ñu teelu lépp ak Abdoulaye Mal ancien président bu conseil italien Silvio Berlusconi daldi rekk génn àdduna ci altine bi Silvio Berlusconi nekkoon ku ñu ràññee woon loolu foofu ca Italie ndax rek ci li nga xam ne ci la doon yëngu wante tamit nekkoon premier ministre bu gën a yàgg ci bopp gouvernement bu Italie def na ñett mandat mu am juróom-ñeent fukk at ak juróom-benn mu nekkoon sénateur bu ni nga xam ne noonu la génnee àdduna wàllu koom-koom tamit bay na ci waaram ci ay secteurs yu bëri. liggéey ci banque ci foofu ca Milan doon woy ci ay bateau croisière mu am licence ci wàllu droit ci business itam euh, ci wàllu affaire rek bu mu duggee foofu la léppam daal di tàmbali di baax ci wàllu média tamit moom Berlusconi dugg na ci def na ci rek ay programme yu gën a tax ñu ràññee ci wàllu football tamit moom ku bëggoon football la moo waral nag mu jiite woon lu toll ci fanweeri at ak benn club italien bi di AS Milan laata rek mu koy jaay ay chinois ci atum 1974 nag ci la Silvio Berlusconi daal rek tàmbali carrière ci wàllu politique si jamono boobu sax la daal di lancé parti bi di Forza Italia. ni koy defal lu bëri moom euh, Abdoulaye Mal li moo frisé woon ci xibaar jaa ngeen jëf ci teewlo bi xibaar yi di fi dikkaat su jom ñetti waxtu jotee ci kàllaamay tubaab lay doon ak Sonas Sujon di leen yaanal fonaanu jàmm di ko sàkk ci yéen